Touba ci sëñ taxa euh, moom ndax la mu ci war a taxawee moom daf koo taxaw ndax euh, réew mi foo fi gis loo xamante ne dab na nit rek ci lu metti moom fa mu toog da ko yëg loolu nag moo tax mu jël délégation amoon na ay kilifa sax yu mu jëkk yëkkati ñu fexe ba li nga xam ne mooy yëngatu yi dal ñun def nañ seen liggéey ba noppi Euh, ñun nag euh, ba tey ci njabootam lañ bokk di ay taalibe jóg war ko séddaleel li nga xam ne moom la génne woon mu doon ndàmpaay jëm ci njaboot yi kon euh, ki nga xam ne moom moo wàcc liggéey muy Cheikhouna Ndiaye sëriñ bi ci njabootu Sénégal la kon ci njabootu sëriñ bi la waaw kon dafa yëkkati ñaari millions yi teg ko ci seen loxo ngir mu doon ndàmpaay ci njaboot bi yéen ñi nga xam ne yéen a ko yoroon bokk moom lépp loolu moom mooy moom lañ doon dox si waaw bu ñu jógee fii dañuy jàllaat feneen ndax lim ñu sant euh, bu ñu jógee euh, Dakar gi it war nañ dem ba Bignona ngir dox loolu lii rek moo ñu ndax li ñuy def ginnaaw yëfi lislaam la mm-hmm. li ci am solo mooy imam bi wala délégué de quartier bi yéen ngeen ñëw seere ko mu doon lu rafet loo xam ne la ngeen ci war a def ngeen def ko loolu mm-hmm. jërëjëf jërëjëf mën nañ ci sànni kàddu waaw bu baax a baax jërëjëf sang bi eh, man maa ngi tudd Duudu Ñaaña Fay di délégué quartier bii ci Parcelles Assainies mm. dafa am ñaari côté boo xam ni man maa jur njaboot gi ndax seen papa maanaam borom kër kii di goroom ñoo ngi doon ànd en 1965 di jàngandoo nekk xale kon ñuy ànd ba léegi kon colère googu dëgg la kon fi ñuy toog fii sama njaboot la noonu ma leen di biral loo xam ne ma bëgg ñëpp li ñuy yëg bare bare bare li mu tekki li mu njëkk a tekki mooy ku ñëw da ci muure da nga xam ne axalamtu su dénk naan sama àddal àllaaxira sëñ bi wane ne kat àddal taxaw àllaaxira taxaw nañ fii kon ëllëg du jeeñ am ndax ba événement bi éclaté ba léegi ku nekk ci senegal ak bitim réew sax dégg nga li sëñ Moussa mun taxaa taxawee muy taxaw bu bér fépp dox na ci jàmm ba mu am taxawu na taalibe yi taxawu na doomu aadama yi fu ñu nekk ma nga leen fay fekk te man wóor na ma man bir na ma ni wóor na man bu jullee ñi génn àddina yëpp ñaanal na leen loolu moom dama ko xam kon ñun ñii dañuy bég ni sëñ bi ñun tam dañuy wàññeeku jaale ko parce que ay taalibeem la taalibeem moo génn àddina ak njabootamu génn kenn ci ma génn àddina ñuy gërëm sëñ Mountakha Mountakha di ko gërëm di ko sant di leen wax ni bu ngeen demee ñu ne ko waajuru Cheikhouna nee nañu seen xel dal na fii te dina dal ëllëg feneen wallahi azim dina dal ndax kat mandarga bii dafa am lu bari lu muy tekki ci ñoom ñu toll diggante sa kilifa nga ni axal bi tu nax ñëw dénk la sa tàllal fekk si la muy tiis mu fekk si la bu fekk muy naqar mu fekk si la buy bànneex mu fekk si la kooku boo ko amee sa xel dina dal ànd ak ñun taqar bi ba pare yëkkati al teg non sëñ mun yal na ko yàlla guddal fanam loolu la amoon loo bëgg naa ko ci wax yem ko yaayam ji ne aussi am na lu mu ci bëgg a wax ñaari kàddu asalaamaaleykum wa rahmatulaahi taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar ku ci nekk di leen ñaanal yàlla seen tànk yi yàlla na def ci tànk yi mu sopp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi di leen jàll nag sëñ Atou yàlla na ko yàlla yërëm xare koy àjjanay firdaws yàlla na taseeg malaaka yéen mande ba keroog àjjanay firdaws bàkk si ñoom ngi leen ñu gërëm nag sëñ Muntaxa bu baax a baax di ko ñaanal yàlla na fi yàgg te wér lu mu mën ren bu déwénee yàlla na ko mën yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu gunge ba ci kanam a kanam yàlla may ko kàttan boo xamante ni dinañu mën di gunge di jaamu yàlla comme di jaamu suñu borom comme ni ko bëggee bàkk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa wax dëgg yàlla lii nag moom ku mu doyul dara dootul la doy parce que am naqar ba pare bis ñu lay taxawu wax dëgg yàlla dafa jafe ñàkk seen temps yëkkati leen ay mag ay kilifa ngeen ñëw tamit dama leen di ñaanal yal na leen yàlla fay ami nag moom nee naa ko suma la doon jooyloo doo jooy ndax du moom rek laa am si gorom nee naa ko tam yow mënoo maa may loo xamante ne aw ma ko mënoo maa defal loo xam ne ni gisuma ko mais yar gi nga ma jox rek dafa doy sëkk lu ma soxla suba ba ngoon jot mu ngi ci yaayam génn na àddina am na fukki at ak juróom benn man xaw ma yaayam li ko sama doom di takk xaw ma yaayam papaam bi mu génnee àdduna ak léegi ñaari at defe naa xaw ma ñett ci la war a toll mu yor ay rakkam nag fekk kenn fekk ko ci muy leen di dundal di leen waddal te mënoon na ne xale laa damay dox sama jamono waaye mu ngi ci biir këram yore ay rakkam xiifu ñu maru ñu naan dama daa wax sama doom di ko man ami boo gisee ma bëgg ko dafa sopp ay rakkam te bàyyiwul ci kenn gis nga keroog dimanche bi ñu mujjee wax ak rakkam bi Cheikhouna daf koy tooñ ni ko Cheikhouna yow xanaa doo takk jabar mu naan ko li ma leen yéene xaaral ba muy bàyyi jàngam di jóge Ziguinchor seen yaay bi muy génn àddina dafa bàyyi tiir ko tooy xepp ami ñu liir bi jox ko maamam li jur yaayam Ziguinchor ak Cheikhouna ñi ci des ñu jigéen ñi mu yore leen ñaan jigéen ñi fii la leen yor ba ñu am sëy ku mag ki ki taxawoon fii léegi sama doom la ko bàyyee ne papaam bàyyee la moo ko ma essayé loolu ku mu doyee dara dootul rek ñu daal yëguñu lu dul ñu tëdd man fekk moom sama doom bi borom këram ma nga RDC Congo dafa dem mission ma ne ko maa ngi koy message ci guddi bi ne ko xale yi bu ñu jàngi comme dëkk bi dafa nar a léegi ma am ñaan yi ma ko jox mu koy def nee ñaan yi su koy commencé rek nee na mu mel ne dañ jaxase xelam moom ami mënatu ko yeggale mu ne xale yi nañ leen après noonu rek police woo ko mu ko yaay ma ko àndal tey yaay ne ko waaw mu ne ko léegi police ndax Cheikh naa dañ ko jam paak ba yàlla def leen man mënuma génn man ko tax woo mu ne ma maam mënuma la woo ndax comme xam naa ne ay 5 heures du matin ngay jóg di naafila bi ñuy salaatu sama doom bi ñuy wax Fadel moo fëgg ma ne ko kan la da nga ragal la mu ubbi mu ne ma maa ko am yaay bi ñu agressé ma ne ko man rakkam mu ne ma Cheikh naa bi ñu fi ma koy waxee ak fi ñuy salaatoo benn loolu laay asi te jour boobu moom woo na ami ni ko rakkam bi gën a ndaw mu ne ko anama bu mu génn kër gi man bi ñu nee sax ak kooku laa ko tegoon parce que kooku moo gën a yëngatu kii xamul woon dara dara dara nii nii daal lañ ci am xale bu jullit la nag waxtu du koy rakkam yëpp moo ci gën sama doom tonton la koy woowe tonton la koy woowe ñu ne ko nag suñu la doon jooyloo wallaay azim doo su ma tukkee moo baax ci man su ma feebaree moo baax ci man nee papam da ko daan wax man juruma la fexeel nekk ak sa yaay nit ma ko te mu koy doxal ba mu mot sëkk mu sëkk dama leen di ñaanal ñoom ndegam ñaanu ci doom dëgg dama leen di ñaanal li ma leen yàlla na ci yàlla def ñu teg ci seen bët ci barke say si kontaan ci moom wax dëgg yàlla umma bi yëpp kontaan ci moom euh, maa ngi seetaan tere keroog dama ko admiré bu su ma xoolee sama rongoñ day tuuru ma doon naan yàlla ay kàdd yoo xam ne dina ko mën a jot moom du xamal ne ko wallaahi réew mi gërëm nañu ko wallu na xeet wi walu na xeet wi de ndax demoon nañ ba nga xam ne réew mi su bés boobu su doxal amoon kenn xamul fu ñu jëm li naan waxta di ko loon fitna boo xam ne bu ñëwee kenn du ci mucc ndax kii bokk noon ñu doon ñaxtu mais gis na saa borom jël ko ci kon nag moom mi nga xam ne moo wax ba mu fay yal na saa borom defal ay mbiram ak mbiri taalibam ndax ñëpp njabootam la ndax li tax seex bi jëre yërëm mooy kilifa goo xam ne dafa jàpp ne ñëpp moo leen jaboote loolu doy na waar te jaboote ku mel ni ñun loolu pour ko yàlla dénk doon na guddi maa ngi dégg mu naan bii ñu def day mel ni ci dëkk ci kër gi lañ nekk yëg-yëg boobu dafa metti lool wallaahi maa ngi koy ñaanal bu baax a baax di ko xam ne réew maa ngi koy ñaanal yal na ko yàlla defal ngërëm adduna ak ah, ndax nit la koo xam ne amul benn fànn booy laal nekk fa bii xale yi demee ci géej gi am ñu ci faatu yow yónnee na fa njaal lu yëngu ci réew mi sax mu ngi ci bi mbas mi ñëwee mu ngi ci lu ne lu dal ci njaboot mu jàpp na ne ci moom la loolu metti na sëñ bi su dee kon nag maa li may wax waa réew mi su dee ñu ngi dégg maa ngi leen di ñaan yërëm Cheikh Mouhamadou Mountakha koo xam ne lu la dal moom du nelaw nañ dal rawat na xam ne ñoo yëngu ci wàllu wàllu réew nañ dal ah su fekkee yow soo lëjëlee sa kilifa jóg lijjanti xanaa da ngeen koy yërëm xanaa ñun suñ toogal Cheikh Mouhamadou Mountakha jóg di jël ab téléphone kenn du ñu koy ñeewoon di jël jox ko su fekkee suñ taalee moom mooy jóg jëm ko fay waaw nañ ko yërëm bañ a tee taal maa ngi dénk daal wax dëgg yàlla politiciens yi nañ ragal yàlla nañ ragal yàlla nañ yërëm Cheikh bi koo xam ne su ngeen amee fitna du nelaw mag mu toll nii ngeen ah ñu koy sonal moo nga sa xam-xam ba mu ngi sa université ba mu ngi ci lépp yal na ko sax borom yàlla sàmm yal na ko yàlla dëgëral yal na ko yàlla dëgëral maa ngi jégalu ci kàddu di leen jaale yéen tam Cheikh euh, Cheikh Atou euh, di leen jaajëfal yéen tam ndax kat euh, yoon yu bëri na ay kuréel waaye seen méthode ak seen organisation bokk na ci ndax ñu jox leen ko yal na sax borom dafa leen ci aw yiw di ko juudi karim ko yàqla wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain di ñaanal Cheikh Mouhamadou Moustapha yàlla bay sëriñ bi noo ngi deeti ñaan dafay nangoo dagaan nangul nu lépp lu ñaan faqiir dafay nangoo dagaan nangul nu lépp lu la ñaan ndax yàlla naatal xarni bi noo dagaan ci musawaan ma nekk marwata ak xaqi xamdi mustafa bi yàlla jébal xarni bi ak aqi ay rakam ak aqi seen baay ak aqi Seexi Bambam ndax naatal xarnu bi ak aqi mbooleem ay ak aqi seen baay ak aqi Seexi Bambam ndax yàlla naatal xarnu bi mbooleem muri yëpp ngi tuub te bakkaari ñu juub balu nu bay bay du